Elhadji ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo ci gannaaw bu gouvernement ba taxawee yéenekaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ñu xam ne nag ñoo nekkee foofee am na programme bu am solo boo xam ne taxawal nañ ko ngir jutali loolu rek rek ngir gën dooleel boobu lay coalition ndax sax du mujjee ci nekk ci parti politique bi di ñu xamal ne ak lu mën xew daal ñi nga xam ne daal ñoo nekk woon coalition boobule te lépp loo xam ne nag jëm na gouvernement bu yees bi nga xam ne daal moom la ñu doon taxawal ci réewum Sénégal am na am na ci ñoo xam ne dañoo mer ba futi yéen kaay bi dañu xamal jàppal Seydou Gueye kay dafa mer ba futi ci lépp loo xam ne nag jëm na ci waaw ak Mor Ngom ak Manick Ndiaye yéen kaay bi dañu xamal ñoom kay bokk nañ ci ñi nga xam ne daal dañu doon jàppale ki nga xam ne nag moo di Macky Sall waaye nag bu dee gouvernement bu yees bi nga xam ne daal taxawal nañ ko ci réewum Sénégal dafa mel ni kay dañ leen caa fàtte laas yéen kaay dañu xamal ne kay njiitu réew mi di Macky Sall am na ndaje mu yaatu moo xam ne daal war na koo amal waaw am ndaje ci daar daar moo mën a ndaje nag la mu ciy waxtaane bokk na ca lépp loo xam ne ci réewum Sénégal ak programme yi nga xam ne daal moom la ñu dëmmal yéenekaay yi nga xam ne daal dañoo nekkoon démb tey ku doon ko jàppale depuis démb ba léegi dafa mel ni nag da fàtte te loolee nag xel nangu ko bu nag lépp loo xam ne nag jëm na ci poste premier ministre bi nga xam ne daal moom moo woon di réewum Sénégal jamono ci li ko ñor moo di combat ba

ñu xam kay Macky Sall da koy ndax ñi nga xam ne daal ñoo nekkee ci biir gannaaw yëglu gi nga xam ne daal dañ nañ ko amal ci réewum Sénégal di xam ne nag lépp loo xam ne jëm na ci njëgu farine gi dañu sàkku nag ngir ñu wàññi leen waaye tamit jafe-jafe yi nga xam ne daal dañ koy jànkonte seen ak liggéey gannaaw ñaxtu goo xam ne daal dañ ko amal waaw maanaam daal doon artu ñi nga bi dañu xamal ne jamono ji xam ne daal ñoo fas yéene banque seeni loxo li si ko yéenekaay xam ne nag moo amoon université Gaston bi dañu xamal ne yi nga xam ne daal ñoo nekkoon foofee ba ñu meree ba yàq lépp loo xam ne nag jëm na foofee ca université jamono ji nag yi ñu xam ne daal lañ nga xam ne daal noonu la dox yéenekaay bi di Le Quotidien di ñu xamal ne kay ay jafe-jafe kay tàmbali naa ci réewum Sénégal ndaxte daal ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci biir palais bi am na ci kenn koo xam ne daal waaw maanaam ci ñi nga xam ne ñooy yoro standard yi ci standard yi ab woote boo xam ne dañu ko doon amal yéenekaay bi di xamal ne moom kay ba mu tàmbali woote ka mu soxla woon moo di Cellou Dalein Diallo moom mi nga xam ne daal moo

koppar yi nga xam ne daal jot nañ leen ko jébbal yéenekaay bi nañu maa leen koy xamal bu dee Lac de Guiers numéro 2 na ci juróom fukki million ak juróom bu dee nag Boy Niang lu toll ci juróom benn million la ko jox mu nekk nag combat boo xam ne ki ko tëgg di Baye Ndiaye mi nga xam ne moo jiite Alburax Event